mbiram Serigne Touba ñi ngi ciy sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi bi ñu juddoo ci ak taalibe donn ko taalibe ci suñuy maam suñuy wàjjur ba fii ñu taxaw te yàlla xéere ci lu dul am yëg-yëg ci Sëñ Tuubaa di ko liggéeyal di sant bu baax a baax a baax ñi nga xam ne ñoo nekk ci bopp Touba ci kanam ci seen xalaat bu rafet waaye ci seen pësteef waaye ci seen yëg-yëg ndax ni ko sëriñ Abdou Fatah le waxe léegi nit yëg-yëg moo koy conditionné mu jëm ci acte bu mu def acte bu mën a doon kon nag su fekkee ne suñ borom tabaraka wa taala xiir nañu ci sëriñ Touba ñu am yëg-yëg ci sëriñ Touba ba suñu àddina ak suñu àllaaxira suñ jaayante yëpp ñu yëkkati ko mu jox ñu yëg-yëgu nañ yëg sëriñ Touba nañ daw jëm ci sëñ Touba li sëñ Abdoul Ahad waxoon rek ba ma xamee ne xoolee lépp lu ma am ci terangay adduna lépp lu ma am ci maqaama lépp lu ma toll lépp sëñ Tuubaa ma ko may ma seet seet lu ma ko mën a faye aw ma ko damaa di sama lépp jox ko sëñ Tuubaa ba mu jeex te mu mel ni murid yi roy nañ ko ci loolu ba ñëpp nee nañ dar na Serigne Touba ku xool jataay bi dégg ni mu demee gis action bi ni mu demee gis préparation bi nga war a xam ne murid yi moom am nañ yëg-yëg ci sëñ Touba te seen lépp sëñ Touba la ba jeex gannaaw bu loolu wéyee nag. ci wàll ji nga xam ne moom la ma yàlla na natoo ma fare fi muy ci taalibe Serigne ñu yëkkati ma teg ma ci boppu commune bi ma dénk ma liggéey bi ma ànd ko ak taalibe Serigne yi li ci sama warugar te nga xam bi ñu xalaatee xalaat bii ñu woote mbooleem ñoo xam ne xam nañ ne dëkk bi am nañ jafe-jafe ñi ngi dund ci jafe-jafe ci assainissement te ñëpp ñi ngi ciy def li nga man état Sénégal mi ngi ci di def li mën lépp commune bi mi ngi ci di def lim man lépp association yi ci koñ yi ñu ngi ci lim man di def lépp waaye loolu assainissement dafa nekk mbir mu diis moo xam ne munul xëy sotti bi ñu dajee waxtaan ma woo ak autorité yi muy gouverneur préfet sous-préfet woo association yi fi nekk yëpp woo service technique yi fi nekk yëpp woo waa Touba ca kanam ak association yi nekk ci gox yi ak goxaat yi ak euh, waa wilaya ñëpp laa woowoon bàyyiwuma woon benn secteur ne leen dañoo ba damaa bëgg ñu def ref journée de réflexion boo xam ne dañuy xool jafe-jafe yi nit ñiy dund ci dëkkam sañ Tuubaa bi nan la ñuy def ba def ci liñ man ne doo saafara moom yombul waaye nit sañ naa am yéene am pas-pas tey jéem ba sun borom dogal ko loolu moo tax bi ma leen bi ñu toogee waxtaan ak autorité yi ak waa membre état yëpp ak service technique yi waa tuubaa ca kanam ñoom ñu ñëw ci ak acte bu am solo boo xam ne ni ko sëñ dafa Fatah waxee mbooloo mu daje te am pas-pas te am ne tey dox lu nekk fu nekk mën nañ faa àgg ndax li mu wax nii ñu ko tàmbalee dañ ko tàmbalee yow nëga mu jëm ba aba abadan ndax feek àddinaa ngi dox yoonu murid di dox tuubaa di dox liggéeyal sëñ Touba di wéy kon noonu ma ñu firndeel ko ñu daje waxtaan ci ñu tënk li ñuy tënk nan lañ ciy jubloo ñoom ñu dem réfléchir ba trouver solution bii nga xam ne ñoom ci seen ak xereñ ci seen ak njàmbaar ci seen ak manko ci yëg-yëgu sëñ Tuubaa nga xam ne li ni ñu ko tëddee Tuubaa ca kanam taalibe sëñ Tuubaa yëpp a ngi ci ñu laase ko mu murid yi répondre ci nii taalibe sëñ Tuubaa yi répondre ci nii li ñu ci teñ ànd ko ñun la ma leen waxoon ci tàmbali ba rek maa ngi yéen Touba ca kanam moom liggéeyal sëñ Touba te kenn du ma ci man fu ñu toll ku fas yu ma yéene ku yàlla bind man ma ci liggéeyam sëñ Touba loolu moom maa ngi ñaan suñu borom nekk ca jàmbaar yi ci kanam loolu nag ñu ànd ko moo tax bi ñu jógee ñëw Abdou Lahad Ka en tant que taalibe Serigne bi ñu waxtaanee ma ne leen danaa ci def sama ñaq danaa ci def sama alal danaa ci def sama xel danaa ci def limaam ma lépp ci logistique loolu moo tax bi ñu ñëwee en tant que Abdou Lahad Ka ma jël 5 millions yoo xam ne maa ko def addiyee Sëñ Tuubaa du acte bii nag moo njëkk ci moom dama fas yéene acte bu lu ñu yëkkati rek Abdou Lahad a ci biir lu ñu yëkkati fu ñu toll ma toll faa ñoom feeg maa ngi koy man loolu ma ma ma yëkkati loolu def ko yëkkati sama logistique du entreprise boole leen ak moom. ne leen fu ngeen toll ñu toll fa doore nag ñëw ci li nga xam ne moom laa yor te ñëpp bokk ko muy commune Touba bi. commune bi it ñëwee li nga xam ne moom lañ yaakaar ne bi ñu toogee wax programme yi muy logistique bi nga xam ne fonctionnement am ci carburant yaakaar naa ne lu mu bari bari mënul ëpp 5000 litres ma yëkkati 5000 litres jox leen. waxtaan ak sama bureau municipal ak conseil yi yëkkati 30 millions de francs CFA def ko ci participer ko ci waaye quatre-vingts personnes yi nga xam ne ñooy personnel service assainissement ma jël trente personnes yi mettre ko à disposition de Touba ca kanam ngir ñu mën a ànd ak liggéey bi à parti de tey ba ba ñuy wax liggéey bi jeex na ñu nekk ci seen disposition ak oto commune bi nga xam ne hydrocureur la ñu ngi fi te fépp fu ñu war a manque wala fu ñu war a liggéey dañoo war a dindi ndox ma mu ànd ak ñoom dindi leen ndox moomu ba faciliter ñiy liggéey ñu mën a liggéey ak leneen loo xam ne nee na këtt ne jonn te commune bi man ko texte yi ak droit ak may ma ko ma def ko ma diisoo ci ak ma ci mën a diisoo topp ànd ko ñoom bam jeex gan loolu daal laa la ñu laa ne woon danaa ko leeral te di leen xamal ne Abdou Lahad Ka ci cinq premiers membres te membre de Touba ca kanam yi la fas yéenaa bokk te du ci des ganaaw ndax sama maam musul des gannaaw ci yoon yi sama baay musul ci des sama sëriñ sama idol sëñ Abdoulahan Mbacke kenn du tudd yoon mu di te tuddoo ko junni yoon donc loolu laa fas yéene ànd ak yéen nekk ci yéen ànd ak yéen fas yéene di liggéey ba am ngërëmal sañ Touba